Allahu akbar Allahu akbar laa ilaaha illallah
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تطل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم ñu ngi sant yàlla ñu ngi koy màggal ñu ngi koy kañ ñu ngi julli tey sëlmal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñaan yàlla mu dolli ko xéewal moom ak waa këram ak képp koo xam ne teg na tànkam ci suñu naamba bés pénc ñuy fàttali suñu bopp di leen fàttali di ñaax suñu bopp di leen ñaax ñu takkoo ragal yàlla fu ñu munti nekk ñu xam ne ci ragal yàlla googu la ñu mën a amee teraanga àdduna ak àllaaxira yàlla nañu yàlla defal li nga xamante ne moom mooy ragal yàlla boobu doomu ndey mbokk julli ni suñu xutba bi passé ñu ngi nekkoon ci tawhid nekkoon ci shahaadatu an laa ilaha illa allah wax ci suñu kémtalay kàttan ak ni nga xamante ne noonu la ko yàlla faram fàccee ñuy seede ne kàddu googu mooy kàddu dëgg waaye bu ñu waxee ne kàddu boobu mooy kàddu tawhid am na li nga xamante ne moom moo koy contrer di li nga xam ne mooy weddi kàddu googu te liñ ci gën a xam moom mooy bokkaale yàlla wala nit ki nekk yéeféer tifaaqan incha allah suñu mawdu tey ci loolu lay dox bu ñu nee nag weddi yàlla wala nit ki nekk ci bokkaale dañuy dugg point par point te point bi ñu tànn tey moom mooy point bi jëm ci wàllu njabar ndax njabar nekk na loo xam ne lu baax la wala nekk na loo xamante ne lu bon la yàlla nag moom moo ñu bind moom moo ñu fi wàccee moom moo ñu tëralal nan la ñuy doxalee moom moo ñu avertir ci li nga xamante ne nii buñ ci nekkee xam ne safaan la fitna moo ñu ci yóbbee fii ci àdduna wala allaaxira yàlla moom moo ñu rëddal li nga xam ne moom mooy loolu yàlla indil ñu ay histoire yu ñuy nettali nettaliñ histoire boo xamante ne lii di jinne yi ak ki nga xamante ne mooy yonent yàlla Suleymaan ak ñaari malaaka yi nga xamante ne yàlla nattu la na leen woon wàccee leen ci kaw suuf mooñ leen li nga xamante ne loolu la mooñ doomu aadama ak jinne ndax ñoom ñu natt seen bopp par rapport ak ñun bu leen yàlla mooñee loolu dinañ mucc ci bàkkaar wala duñ ci mucc ndax ñoom dañoo demoon ba suñuy bàkkaar daf leen yéemoon ñoom malaaka yi ba amoon na benn werante bo du werante sax waaye amoon na waxtaan boo xam ne seqoon nañ ko seen diggante ak seen borom yàlla ne damay wàccee ci kaw suuf ñoo xam ne dañuy utante yàlla taamu ci doomu aadama bi yàlla waxee ndigal boobu ñoom seen bopp dañ ne yàlla xanaa dooñu ne da ngay wàccee ci kaw suuf ñoo xam ne dañuy tuurante ay deret ak a def li nga xamante ne mooy yàq ci kaw suuf atajaalu fiiha man yus man yusidu fiiha wa yasfiku dima ndax dooñu ne da ngay wàccee ci kaw suuf ñoo xam ne dañuy yàq suuf ak di tuurante deret yàlla ne inni alamu ma la taalamun xam naa lu ngeen xam ne xamu leen ko te yemul ci lekk wax leen loolu waaye dafa leen indil preuve mooy dafa indi suñu maam aadama mu taxaw mu indi ay mbir laaj leen na xam ngeen lii yéen malaaka yi malaaka yi tontu ne ko qaalu suba qaalu subhaanaka laa ilma lanaa illaa maa allamtanaa ñun de tudd nañ sa sellaay yow yàlla waaye xamuñu lu dul loo ñu xamal mooy maanaam lii nga ñu wan ne ñun xamuñu ci dara yàlla mënoon na leen ko wax directement waaye pour wan leen ne xam na lu xam na loo xam ne malaaka yi xamuñu ko ci la ne aadama wax leen li nga xamante ne mbir yi mooy yan mbir aadama daal di leen wax mbir yi yan mbir la ci la ñu mujjee yéemu ci borom bi subhaanahu wa taala donte yàgg nañu ñoom malaaka yi di yéemu seen borom ginnaaw loolu ñuy doxal yàlla wàccee aadama ak histoire boobu yëpp ñun xam nañ ko ba mu yegg ndax loolu du programme mu xutba bi waaye aadama wàcc na si kaw suuf di tasaaroo moom ak ay doomam ba ñu dem ba jë- jamono yonent yàlla Suleymaan population yi gën nañu bëri bàkkaarit bi ni doomu aadama di def doy na waar yéem na leen ñoom malaaka yi bañ koy waxtaanee seen biir yàlla nattu ñaar ci ñoom muy Haarut ak Maarut wàccee leen waaye ci wàccee boobu mu leen wàccee façon histoire bu nekk ñu ngi ko ciy dégg waaye ñi koy wax ñëpp dañ koo waroon basé wu ci li yàlla wax du nekk rek ne nit ki mbir yi daf koy waxee nu mu ko neexee amul dara loo xamante ne nii mu ngi ñuy jëriñ wala mu ñuy lor ci suñu dund bii fii si àdduna loolu ne yonente bi jàngal nañu ko amul dara lu ñuy jëriñ war ñoo dugal alla war ñu dugal àjjana àllaaxira ëllëg ak jàmm wala mu nar ñoo lor nar ñoo dugal safara lu dul yonente bi jàngal nañu ko kon mbir buñ ciy wax dañ ciy dellu ci waxu yàlla wala li nga xamante ne yonente bi loolu lañ jàngal yàlla mu ñuy wax ci alquran mu ne wattabawu ma tatlu shayatinu ala mulki suleyman wattabawu nag yàlla bi koy bi mu koy wax mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo topp seytaane yi ci mbiru mbiru nguuru suleyman ñi topp seytaane yi du ñenn ñi nga xam loolu ñi nga xamante ne mooy njabarkat yi njabarkat yi mooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo topp seytaane yi ñu leen di dicté ci mbiru nguuru suleyman moom la yàlla ne wattabawu ñan ñoo ñan ñoo topp maa tatlu shayaatinu ala mulki suleyman mooy ñi nga xamante ne mooy njabarkat yi yàlla ne wa maa kafara suleymaan walakinna shayaatina kafaru su suleymaan de nekkul woon yéeféer waaye seytaane yi ñoom ñi nga xamante ne ñoom lañ doon ñoom la nit ñi doon topp ñu leen di wax ay mbir yoo xam ne existé wul ci suleymaan ñoom ma diine yooyu noonu ñooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom ñooy yéeféer kon ñi topp jinne yooyu jinne yooyu ñu topp ñoom ñooy yéeféer waaye suleymaan nekkul yéeféer lu tax yàlla ñëw indi nag turu yéeféer mooy mbiru njabar moo tax yàlla indi turu yéeféer mooy maanaam ñoom njabar googu ñuy jàngale képp koo xam ne mu ngi ci di ko def ñu tere la ko wax la ay signes yu leer ne la julit du def njabar julit warul jëfandikoo luy njabar nga dëgër bopp nekk ci di nax nit ñi boobaa nag dañ lay yéeféerloo loolu mooy takfiir maanaam nit ki sa amoo droit ñëw gis ko mu nekk si ñaawteef nga ñëw rek dal ci kawam déedéet da nga koy xamal ne ko lii nga nekkee kat baaxul lii ak lii ak lii ak lii lii la yàlla wax lii la yonti mu wax mu leer ci boppam su dëgëree bopp persiste nag nekk ci mbir mi nag bu boobaa nag ci lañ koy yéeféerlu te atteem leer na nañ kon ñi nga xamante ne ñoom ñooy topp seytaane yi ci mbiru Suleymaan ñooñu ñooy ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy ñi nga xamante ne ñooy ñu yéeféer ñoom ak jinne yi ñu àndal wa maa kafara Suleymaan walakinna shayaatiina kafaru yuallimuna naasa sihr gis nga ñoom jinne yi ñoom ñooy jàngal nit ñi li nga xamante ne mooy sihir mooy njabar ñoom jinne yi ñooy jàngal li nga xamante ne moom mooy euh, njabar euh, doomu aadama yi nga xam ne ñoom ñoo bëgg jëfandikoo loolu moo tax boo demee suurtun jinni yàlla mu ngi lay wax ne ñoom jinne yi dafa am lu ñu soxla ci nit ñi waaye am na ci nit ñi tam ñoo xam ne dafa am lu ñu soxla ci ji- ci jinne yi lu leer la jinne yi lu ñu soxla si ñun ñun xam nañ ko mooy li seen maam iblis mës a bëgg mooy yowmal xiyam bu taxawee lu ëpp ci doomu aadama yi taxoon yàlla wàccee nguuram nañ ànd ak moom dem safara loolu mooy mission am ñoom amuñu mission wu xëy di ut liggéey ut dépense amuñu mission boobu jinne yu baax yi suñu des tu lekk yi yàpp yi yax yi la ñuy jël tudd ci turu yàlla mu nekk mu nekk suuf ñu lekk ko jinne yu bon yi ci duusi la ñuy dundee ci ginnaaw kër yi la ñuy luxus soppi ko di ko dundee am na histoire boo xam ne bu gudd boo xamante ne mun nañ ko nettal ci benn góor bu ko dundoon ci dëkkam ba génn àdduna doomam wutu ko nekkoon ku baax ba nañu feeñalee nekk te góor gi lu mu doon dundalee waa dëkk bi yëpp ay ginnaaw kër la mais jinne bi mu nekkaloon muy jinne jinne bu jigéen nekk soxnaam moo ko doon defaral li nga xam ne mooy yooyu xëy na comme xutba bi xutba yi ñëpp ci yooyu lay dem danañ ko préparer benn extrait spécial waaye ñu xam ne ñoom njabarkat yi jinne yi dañ ñoom ñoo leen doon jàngal sihir du du du ñaari malaaka yi yàlla wàccee wax yàlla dina ko leeral ci kanam ñun bë- bëri na bu ñuy dégg histoire yi mooy lan mooy ñaari malaaka yi bu ñu wàccee xaaru ak maaru dañu ñëw pour duñ jàngal njabar déedéet ñoom jàngal luñ ñu njabar bal sax dañoo défendre seen bopp tontu benn tontu wax li tax yàlla wàccee leen yàlla ba léegi mooy yeggale aaya bi mu ngi nekk suratul baqara nekk aaya numéro 102 ñun ñi fi toog ñëpp ku ci nekk mën na ko vérifier tey alxuraan firi nañ ko langue bu nekk firi nañ ko français firi nañ ko anglais firi nañ ko sax ba ci olofal firi nañ ko kon ku nekk mën na vérifier aaya bi te aaya bi moo wax ci njabarkat yi moo wax ci histoire Haarut ak Maarut kon ñoom jinne yi ñoom ñoo doon jàngal nit ñi li nga xamante ne mooy njabar waaye nekk woon li nga xamante ne mooy Haarut ak Maarut wa maa unzila alal malakayni bi baabila Haaruta wa Maarut yàlla nee na wàcceewu ma ci Babylone ñaari malaaka yi nga xamante ne mooy Haarut ak ak ak Maarut wa maa yuallimaana min ahadin ñoom jàngaluñu kenn min ahadin xataa yaquulaa innama nahnu fitnatun falaa takfur ñoom jàngaluñu lenn nuy njabar doomu aadama yi ñoom malaaka yi bal dañoo ñëw juste pour nattu bi leen yàlla nattu gis nga loolu la ñu wax dañoo wàcc dañoo yàlla daf ñoo nattu wàccee ñu ngir lan mooy ñun dañu demoon ba yéemu ci bàkkaaru doomu aadama yi ndax ñoom du ñu def bàkkaar yooyu mais ñun ñëpp xam nañu malaaka yi la moo tax du ñu def bàkkaar yi mooy yàlla moo ñaalewu leen ak ñoom ak bànneex malaaka yi amuñu woon bànneex soxlawuñu sëy soxlawuñu nelaw soxlawuñu lekk soxlawuñu naan soxlawuñu dara ñoom jaamu yàlla rek te duñu mooy yàlla laa yasuna allaha ma amarahu wa yafaluuna ma yumarun waaye ñun yàlla dafa mooñ si ñun bànneex mooñ jinne yi ci bànneex moo waral ñuy bëgg nelaw di bëgg sëy di bëgg def yooyu yëpp léegi nag bàkkaar yooyu ñuy def te yàlla garanti ñu ku tuub dina la ko delloo mbir moom daf leen yéemoon ba ñuy waxtaanee loolu yàlla nattu ñaar ci ñoom wàccee leen mooñaaleel leen comme ñun lim ñu mooñaaleel ñu wàcc def sax ay bàkkaar yoo xamante ni kenn mënu koo natt ñëw na ci histoire mais dafa nekkul loo xam ne lu ma teewlu ndax lu wóor la waaye ñëw na ci seen histoire ñoom ñaar keneen seen bàkkaar yooyu ñu def yàlla daf leen choisir loo mu mbugal leen ko fii ci àdduna alaxira mu jeexal ko wala mu bàyyi alaxira mu fay leen ñoom ñaar ñu choisir nañ leen mbugal fii parce que àdduna dafay jeex ban mbugal lañ leen mbugal mooy yàlla daf leen maral mar gu tar takk seen tànk yi ñu juutu mu timal leen ndox boo xam ne fii la yem ci ñoom lu ñuy gën di xëy mar bi di gën di tar waaye du ñu mën a jot jot ndox bi naan loolu metti na loolu ñëw na ci ay ci ay ci ci ay wax ci siira mais comme sama xam-xam demeewul ci domaine u siira war du ma xuus ci loolu lu bëri mais for naa ko ci yenn bind yi waaye ala kulli xaal ñoom wàccee nañ leen def nañu ay bàkkaar yoo xam ne xaaruñu ko woon ci ñoom xaaruñu ko woon ci ñoom lépp loo xam ne mooy xeetu bàkkaar surtout kabaar yi muy bàkkaar yu mag lii di njaaloo lii di rey nit yëpp def nañ ko ñoom ñaar ndax yàlla daf leen mooñaal li nga xam ne loolu seen natt boobu moo tax mu ñu wàcc bi leen nit ñi di askanalee dañoo ñëw pour jàngal leen njabar ndax dinañ ñoo doon nettali loolu ci ñoom ñaar ñoom ñaar ñu défendre seen bopp ne ñëw ñu fi pour jàngale njabar bal dañ fay ñëw ngir nattu bi leen yàlla nattu ngir teste leen bu leen mooñaalee bànneex ndax danañ ci génn wala génn si kon lu ñuy jàng mooy du Suleymaan moo jàngale njabar du ñaari ñaari malaaka yi ñoo jàngale njabar bal jinne yi ñooy jàngale njabar te ñu ngi koy jàngal mooy seen partenaire u njabarkat yi nekk fii diñu nax diñu lëmbe mais li ci garaaw mooy ñoom seen objectif benn rek la woon ci seen jamono joon yonent yàlla Suleymaan mooy kan dañ doon tàqale jëkkër ak jabar loolu la yàlla wax ci alquran mu ngi ni aaya bi leer nañ wa maa yuallimaani min ahadin xataa yaqulaa innamaa nahnu fitnatun falaa takfur fa yataallamuuna ma fa yataallamuuna minhum minhuma maa yufarriquuna bihi bayna almar'i wa zawji ñoom loolu lañ doon def di tàqale jëkkër ak jabar moo nekkoon seen mbir te ñun ñëpp xam nañ ne ban bàkkaar moo nekk ci tàqale ay nit rawatina jëkkër ak jabar lien bu sacré boo xam ne yàlla moo ko unir ñu ciy dox ba di ko tàqale bàkkaar bi ci nekk kenn mënu koo natt ñoom loolu moo nekkoon seen mbir mais léegi suñu jabarkat yi léegi dañ ci yokk yeneen mbir di def yu gën a bon sax nga gis sa mbo mbo- mbokku nit neexu la nga dem jabar ko mu dof nga gis sa nangam nga dem def ko loo xamante ne ay mbiram day yàqu yooyu yëpp ay xeet la yoo xam ne tey ñoom ñu ngi koy def te dara nekk ci loo xam ne lu baax la nañ ko bàyyi nañ ko nañ ko bàyyi nañ ko bàyyi te xam ne nekkul loo xam ne lu baax moo tax yàlla di wax si ñoom ba léegi ñoom jabarkat yi aka bon ñoom li ñu essentiel seen ruu ak àllaaxira maanaam métier boobu ñu nekk muy njabar muy charlatan bi ñu nekk di ko def di nax nit ñi di ko def di di yàq nit ñi aka moo bon li ñu échangé ak àllaaxira mooy maanaam bu ñu ñëwee ci yàlla duñ fa am dara seen mbir nañ nekk fii di lëmbe nañ def lu leen neex comme iblis mi nga xam ne mooy maamu jinne yi li ko yàlla wax defal lu leen neex maasel ak àdduna mais boo ñëwee àllaaxira safara nga fa- safara nga jëm ñun ñëpp dañ koy wax a'uuzu billahi mina shaytaanir rajim iblis dañ koo raje àdduna rek moo ko fi bàyyi bu jeexee moom xam ne këram mooy safara te ñun ñëpp dinañu dinañ trahir ndax dina def discours biir safara incha allah xëy na dina ñëw ci biir xutba yi discours am boobu kon lii moom mooy mbiru atte Souleymane jinne yi ak ñaari malaaka yooyu nañu xam ne jinne yi ñoom ñoo bëgg loo xamante ne lu bon la ci ñun mooy lan mooy yowmal xiyaam nañu feesal li nga xam ne mooy safara ànd ak ñoom njabarkat yi nag lu ñu bëgg ci jinne yi mooy seen poos moo tax pacte boobu dañ koy signante ñoom ñaar ñoom dañ naan nit ñi fexe leen ba nañu réer fexe leen ba nañ def lu bon sànq si live bi ma nekkoon ci ci TikTok bi am na femme bu dugg boo xam ne nee na njabarkat bi daf ko ne daf dañ ko tàqale diggante moom ak jëkkëram bi mu ñëwee dem seeti beneen njabarkat njabarkat bi nag sa jëkkër dafa am sunguf bu ñu ko def mu sëy ak keneen léegi yow tamit il faut nga mooy yàlla boobu sëy ak keneen ci sunguf boobu tam dañ koy def sa kanam ba pare ngay doog a sëy ak keneen mu ngi koy moyloo yàlla mu ngi ko jigéen ki far yàlla éveillé ko xam ne lu mu ko wax yenewul maanaa mu bàyyee ko fa dem te santeeg keneen mu ne ko del julli del ñaan mu ne ko kooku nga mujjee gis kooku mooy ki la tegtal dëkk saxol julli di ñaan yàlla te xam ne yàlla mooy ki la jege te mooy ki la dégg te yàlla àppam mbiram yow yaay yàkkamti mais mun na ko àpp cinquante cinquante mille ans parce que ñun suñu benn fanu yàlla rek presque ay ay cinquante mille ans la kon yàlla yàkkam yàkkamti yàkkamtiwul dara benn fanu yàlla suñu cinquante mille ans la ñun kon tey jii nit ki mun na dund cinquante mille ans fekk yàlla dencal na ko ñaan boo xam ne àllaaxira rek la ko mën a fayee comme mën na ñaan léegi-léegi yàlla nangul ko ko kon bu ñu ñaanee bu ñu jàppee ne yàlla nanguluñu waaye amaan dañu ko dencal bu ñu yàkkamti ba tax ñuy dem di nga seet mi nga xam ne moom mooy njabarkat yi aquli qawli haza wa astaghfirullahi li wa lakum sa'il muslimin min kulli zambin fastaghfiru ghafurur rahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala doomu ndey mbokk jullit ñi ñu ngi sant yàlla ñu ngi koy màggal ñu ngi koy kañ ñu ngi julli tey salmal ci yoon bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñaan yàlla mu dool ko xéewal moom ak waa këram ak képp koo xam ne teg na tànkam ci sunnaam ñu ñaan yàlla mu musaluñ ci njabar ak lépp loo xam ne jege na njabar doomu ndey mbokk jullit ñi mandarga njabarkat pour xàmmee ko yonent bi jox nañu misaal bu nekk waaye bi ci gën a simple tey nga xamante ne tey ku nekk daf koy def sax te du ko yëg yonent bi nee na ni ngay xàmmee ne kii njabarkat la mooy soo géntee ñëw wax ko sa gént mu digal la sarax nee na su la digalee sarax rek njabarkat la loolu mooy li gën a gàtt si te tey ñun ñëpp noonu la ñuy yittewoo am na ay émission yoo xam ne sax dañ leen koy defal promotion yu toog damaa gént nangam nangam lii ak lii nga war a sarax yonent bi moo wax de nee na boo géntee wax ko nit mu digal la sarax moom mi la digal sarax njabarkat la sarax kenn du ko utal ci amul place ci gént nit ki dafay sarax bu amul toor te nit ki buy saraxe dafay saraxe li mu gën a bëgg mais xool en général li ñu lay sarax la woo yu ñàkk fayda jëla guro bu nangam jëla sondel bi jëla kayitu weex ay mbir yoo xam ne boo ko jëlee yóbbu ko ñu da da pour doyadal islam sax boo nga xool tey nit jinne yi ni ñuy soofantalee diin islam dañ naan demal nga jox ko imam bi jox ko ko ci période boo xam ne sax ñu ngi xutba nga gis xale bi ñëw ñëw di jottali déconcentré ñu bëri ci biir jàkka ji ak li li yonent bi saa saa wax ne nit ki suy julli juma nit di wax sax sañoo ko wax noppi moom mi wax yàq na jumaa mais yow mi ko ne noppi sax yàq nga sa jumaa yow tamit mais xool dañu indi foofu la ñu indi sarax bi perturbé ñu bëri ñu yottalante ko pour na dem ba ci imam bi yooyu yëpp ay xeet la yoo xamante ne ñoom jinne yi ñoo koy bëgg seen partenaire njabarkat yi di leen ko defal kon li gën a néew ci nit ki di ko xàmmee ne kii njabarkat la moo ci gën a néew dinañ leen xàmmee nag ci yu bëri mais ci yu gën a bu gën a néew mooy nit ki gént ñëw ne ne nettali sa gént nit ki ne la saraxeel xutba bii di ñëw ci domaine boobu la ñuy dugg ci wàllu gént ak yooyu yëpp ñoomin seen ak li islam jàngale ci gént ak nit bu géntee yéen taxawaay lay am incha allah loolu mooy nekk suñu xutba xutba bii di ñëw waaye doomu ndeyu mbokk jullit ñi ñu ngi leen di moytandikuloo di moytandiku suñu bopp ñu dem seeti njabarkat njabarkat buñ ko seeti jee te fa la ñuy jeexalee xutba bi ñaar yi moom mun a am te tey jii boo duggee ci tiktok bi dañu ubbi seen live bopp layu lañ lay wan seen page benn layu la ñuy teg teg ci ay pettaaw am koo xam ne sax moom xëy na loolu du ko ci fekk mais ci lalam lay jaaxaan man ki ma ci mujjee discuter ci lalam daal la jaaxaan gaa yi dugg di woote muy wax ay tegtalam bi ma duggee mu mu mu xam ne man mii du genre boobu mais dama ko teel a araftu ngir yàlla bu ma bloqué bu fekkee li ngay wax dëgg la yaa ngi am ay cent nangam bi ñu ñëpp ay sénégalais lañ lu ci ëpp te dégg nañ lu ñuy wax dama la ñaan bul bloqué te soo ma bloqué rek mooy wane li ngay wax du dëgg yéen ñi di déglu nag yéen ay suñu seere loolu moo ko téye mënu maa bloqué ci laa ko ne li ngay def nii nangam ak nangam nangam ak nangam nangam ak nangam après ci la ma ne mokkal naa alxuraan yëpp li ngay wax nii mënoon wax nangam dugg na fi gën a ma ne comme mokkal nga léegi dañ tàmbali jàngal ma jàng dañ tàmbali faatiha rek boo waxee benn aaya rek man ma wax benn aaya ba baqara nu mu jeexee mais wallahi fi ma commencé jàng foofu la foofu la ma bloqué léegi nag fan la problème bi nekk ñu doon suivre ñoom ñooy jugé ku mu neex nga topp ku mu neex nga bañ a ku mu neex nga bañ a topp kon lii moom moo nekk ci live yi ñuy dund wala ñu am seen benn ruq boo xamante ne fa la ñuy toog lal fa seen i basang teg fa seen i béjjën def fa seen yooyu ñaari nag ku ko utiliser moo xam ci réseaux sociaux yi nga jaar jokkoo ak ñoom ngir sa bànneexu bakken wala nga dem seet leen seen ruq ngir sa bànneexu bakken ñaar moo fa mën a xew ñu seetal la wax la nga gëm wala ñu wax la nga weddi te ñaar yëpp dafa am danger bu njëkk bi yoon saa salaam nee na boo demee seet njabarkat yaa def say jeego def say mbir ba jokkoog moom su la waxee nga weddi li mu la wax di nga jaamu yàlla 40 yàlla du ko nangu xilaaf bi fa am nag mooy ñii dañ ne 40 jours la ñii ne 40 semaines la ñii ne 40 ans la waaye bu mu ci nekk xataa 40 secondes deewu nit xaj na ci nit ki na éviter dem ci njabarkat xamul ndax bu génnee fa lay dee mu dee ci loo xamante ne merum yàlla la jéppite yàlla loolu danger la kon danger bi mooy bu mu fa dem ba mu koy wax muy bañ a gëm bu ko waxee mu gëm nag yonent bi nee na weddi na li yàlla yónni woon ci moom mais maanaam murtad na génn na ci diine bi dafa dem seeti njabarkat bi njabarkat bi jox ko ay tegtal mu gëm loolu ba taxaw di ko appliqué kooku yonent saa salaam nee na weddi na li yàlla yónni woon ci moom kon xutba bi boo gisee ñuy dugg ci domaine bii moo dañ nekk moment boo xam ne lii crise la si suñu réew te ñun ñi ñoo leen di promotion woon bu dul ñun góor lu ëpp si jigéen ñi suñuy soxna suñuy jabar suñuy yaay suñuy doom tey ñoo leen jox doole dépense boo joxe sa kër boo moytuwul bu doon 5000 la 2000 lañ lay toggal waaye 3000 yëpp jël nañ ko yóbbu ko ci li nga xam ne mooy njabarkat yi lan moo ko waral mooy message bi moo jàllul li ñu war a xam la ñu xamul kon lii nii na nekk loo xam ne lu ñuy takk la lu ñuy jàpp la ñu tasaare ko fii sabilillah wax bu dëggu bu leer ci waxu yàlla la lu dëng si ñun ñii la ñu ngi ciy jéggalu yàlla yàlla nañu yàlla may dégg ak topp rabbana atina fi dunya xasana wa fil axirati xasanatan wa qina azaban nar rabbana zalamna anfusana wa in lam taxfirna wa tarxamna lanakunanna min alxaasirin rabbana zalamna anfusana wa in lam taxfirna wa tarxamna lanakunanna min alxaasirin bi rahmatika ya rahman rahim ya rabbal alamin wa salli allahuma wa sallim ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain subhana rabbika rabbi izzati amma yasifun wa salaamun ala almursalin wa salaamun ala alahya wal amwat wa axiru daawana an alhamdulilahi rabbil alamin qumu ila salatikum yarhamukum allah
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله